Yeah. mais copain siif naa la mais na namm naa la. maa la raw maa la raw Iba. matinale de sport kañ ngay yeewu suba teel taw. xam nga jaaykatu ndawal. waaw buy yeewu cinq heures du matin. waaw ak liggéey bi. Ah. yow xam nga ne boo dëggee ginnaaw raay ma dëgg. waaw yow boo ma invité wul maa war a njëkk ñëw ñëw ci yow. xam naa loolu. te ne dañ lay dooleel te yow. Ah. bari na ñuy wax ci lamb li nga ci def defuñ ci ji. dëgg la léegi nag waxkat yi bari na. waaw ñuy wax bari nañu waaye li nga def ci lamb. ak expérience bi nga am. Ah. ca lamb bi démb. na ñoo xam ne boo leen yóbboo 2010 ñu dégg. waaye yow ca 2000. waaw yow pour pour ah, géwél bu njool bu caaro mën naa lim ñoo xam ne diggante 2000 ak léegi loolu laaj ma ñu na yow ci nga bokk ba dem Casamance jëfee ci nga ne dal lamb loo dal la loo war a nga quoi mais nga si événement bu mag waaw rëg rëg Boy Niang man yàgg naa pronostic si lamb yàgg naa analyser lamb mais lii du ma ko laal dama kaa ragal non ñi ma waxoon xamoon na ñaar ñu xam nga lamb li ci neex mooy ñaar ñu tolloo kattan. waaw doon ay jeune. Ah. booy ñaa amul loo koy limal ci lamb. rek rek faalewul kenn. waaw te booy ñaa guddi goo ko bu ñëwee jàll dem. dëgg la jooju lamb dafay naqare pronostic du yow rek de. déedéet wallaay ci wax da ngaa far. da ngaa far mais kenn ñi wax di woo. kenn warul mais nag loolooy lamb. loolu mooy lamb loolu nag premier kañ la fan la ak naka la. rek rek ko may ndam. le 8 novembre. bu waaw waaw dañ leen wax. waaw li ñuy waaj. li ñuy waaj. yow loo ma wax dañ dañ dañ ci combat. Modou Lo Siteu quatre-vingt-dix pour cent yëpp ne Modou Lo bu ëpp chance gagné mooy favori. Siteu. waaw ba mu jëlee avance Modou Lo la am la am ndam. la am ndam. ba mu jë xam nga tax mu am ndam. waaw Siteu bi muy débuté li ñu doon wax ci lamb. du dem fenn. dañ doon du waaw du dem waaw tey kan lay bëre roi des wallaahi waaye kama kan mooy kan mooy garmi. waaw Modou Lo mi bu guddi ba bëreeg Siteu. bëreeg moo tax jooju lamb. waaw amul lenn luñ ci war a wax. waaw lu dul. waaw fa la lamb yem. fa la yi lamb d'accord ma Ada Ada Fass la de guerre waaw Ada Fass. tey nga soog production bi mu duggee ci làmb ak léegi yàggul. yàggul dafa ko ci sept ans. di bëreeg Lac de Guiers. waaw am na mérite. am na mérite te pourtant lu moyen de sept ans yooyu. waaw mbër na fi amul ndam. dëgg la kon Ada Ada Fass. waaw àgg na fa ñëpp àgg. Ada Fass dem jeli. ki nga xam ne moo doon tàggat Lac de Guiers muy Mamadou Ali Ndiaye mais loolu doy na waar de. waa sel espoir la. espoir la Ali Ndiaye libre na pour dem fu ko neex. ko neex ni Lac de Guiers amee liberté. xam nga lan la d'accord papa li ma yore dama wax ne ma passeport du am sens interdit ah. libre sa bopp bu jox kenn sa jëm ah. yàlla rek ko yàlla jox ko yàlla ah. ama neex caatu daaw da fall dama wax ni ñaari xale yi ni géej waay caatu daaw da fall ñaa bu ndaw waaw Jackson Junior Sénégal ñoo fi pour combat bi ñuy dajee dafay ndaanaan boo xam ne waaw du la xaar may dara soo ñëwee mu ñëw boo ñëwul day ñëw te baar bi si sa kaw la jëm ñoom nag ñu ay e xale nekk ci yoon muy ñaari lamb yu naqare pronostic waaw nañ ci bàyyi xel ah. ndax ama neex barki démb ak dafay jéen xool nga fi jógee tey mu jël ñaari xale espoir yu génn ah. nga xale yi bàyyi xel ama neex dama lay laaj ama seen da leen amal combat ci saison bi wala amelu leen non non ama seen amuñu moom benn problème waaw dafa amoon nekkoon liñ doon waxtaane réglé na ama seen doomu gasson la doomu fils de gasson donc fu mu toll nii makan ñoo bokk bàyyi wax amu ko léegi amatul dara amul wax rendez-vous. 25 waaw Dieye production. waaw Giro Seras. waaw Bulldozer. Giro Seras Baba Dame Signor. bu Yara. waaw ah. Sogas. waaw et tant d'autres. dix grands combats. production moom la ñu indi bi ñu premier. Ah, waaw bi ñu ko waalo ak xale bi nga xam ne mooy Tapha daal. yalla ñu defal ndam. Ah. félicité le nouveau président. le plus jeune président de l'histoire de la lutte sénégalaise. depuis les indépendances. depuis 1960 à l'île Tardia na fi 26 ans. Bira Sène jaar fi def ñeenti at Malick Ngom ñëw na dugg ci seen biir. nga dañu ko félicité. waaw dañ ko fal ci un an. waaw te un bi. xamuñu lu ci état bi jublu ba teg ko un an. waaw est ce que amul ko waajalal. waaw ah. yóbbu ko feneen. loola bu ci amee ndam. waaw ah. réussite Sénégal la. dëgg dañ a ñaaral mu am réussite totale man loolu laa gëm. loolu nga champion d' Afrique. ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam le meilleur leader la fois. xam nga kii. waaw xoolal ni mu def stade duy ko moom fees xale bi day animé làmb waaw ñett am lu mu def ci làmb ah. toll fi mu toll tey ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam xale bu bëgg làmb la tey sonn ci làmb ah. te yàgg ci làmb ah. ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam espoir dafa war a fekk ay moroomam général dafa bëri bëri ay millions comme ay moroomam doon espoir bëgg lamb di jox làmb ak am mooy dugg si ni di bëreet ndaanaan boobu ñu wax jëm téeri di un combat waaye li may wax général bu daanoo daa juum waaye tegee mbiram ci ci làmb Ibrahima Faye Beuz mooy un jeune bu ñëw indi leneen ci làmb ah, ah. ñun ñu am ci confiance ci moom di def perpétuité def lépp ah, ñi koy ñaanal yàlla may ko wér drapeau bi doon mucc ci moom mais Ablaye Diakhaté mi ko tuddee mais kenn du moom am na inspiration bu sori keneen waroon na ko def waaye bu ko defee defal na ko ñëpp mais dibi bi matinal sport lañ koy lekkee jën heure bu la neex ma andi la jërëjëf Abdou Lahad doomu ginnaaw raay la dëkk ko ñu Charlie fële sa ginnaaw raay ndeysaan Abdou Lahad a ngoog moo andi général Malika